Euh, waaw suñu ñëw tey dafa nekk ñëw boo xam ne dafa am importance bu baax ndaxte lii ñu taxaw li ñu euh, euh, visité tey muy FTT dama bëgg rappeler rek bi mu fi ñëw en 2013 ànd ak Ibrahima Makodé Fall ñëw duggum ubbil ma usine bi li ma gisoon dafa ma naqadi woon ndaxte gis naa usine boo xam ne machine yaa ngi fi mu am poussière kenn toppatoowu ko ndaxte tout simplement sénégalais yi ak opérateur économique yi gëmuñu woon na dina taxaw. yàlla def na nag tey euh, euh, si ndimbalu jàppale BNDE ak autorité sénégalaise yi ak xarañu euh, dirigeant bi mooy Macodou Fall mbir mi taxaw na ma bëgg nag avant may wax sama impression même si li ma gis tey di féliciter personnelu NSTS ndaxte tey suñu eggee ba fii nga xam ne machine yaa ngi dox mu ngi produire du fil kooku euh, personnelu NSTS lañ koy félicité ndaxte seen expertise bi ñu bàyyi woon démb ba léegi mu ngi ci ñoom loolu nag dafay wane ne Sénégal tey am na ay capacité pour pouvoir développer son industrie li ñuy def nag si euh, NSTS guleet la guleet la ndaxte euh, ñu ngi doog a développer une entreprise boo xam ne dafa taxawoon kooku nag ñun banque nationale pour le développement économique loolu mooy suñu role mooy gis entreprise boo xam ne taxaw na. gis entreprise boo xam ne mu ngi si secteur boo xam ne c'est un secteur prioritaire marché baa ngi fi ñu jàppale ko mu taxaw mais loolu nag pour ñu def ko dafa fekk ñu ànd ak koo xam ne dafa xam liggéeyam xarañ ci gëm ko muy Ibrahima Macodé Fall ndaxte su loolu moom tey du ñu egg fii yëpp le plan de développement bu mu def pour euh, NSTS weesu na la ñu def nii lii tàmbali la fiil soo ko defaree ba pare il faut nga produire ko il faut nga defar ay yére. il nga defar ay ay ay ay ay vêtements loolu nag bëgg naa lancer un appel à tous les Sénégalais lancer appel aussi aux autorités pour que ñu jéggi ñu ñu ñu weesu euh, tissa euh, fila filature bi dem si tissage bi et loolu nag pour que mu am il faut que ñu jox société bi des marchés qui lui permettent de développer de l'emploi li ma gis tey muy cent vingt personnes yoo xam ne ñu ngi fiy xëy te te a un an et demi xëy ñu fi woon loolu déjà rek war na firndeel ne rek am nañ possibilité pour que le problème de l'emploi de Thiès et du Sénégal ñu régler ko ñun BNDE nag li ñu def mooy dañoo wane ne mën nañu financer l'industrie par la chaîne de valeur commencé nañ si Sodefitex par le coton ñu ngi ci fil bi war nañ dem si tissage bi pour mën a def ay vêtements loolu nag day wane ne Sénégal euh, li ñu am si ay possibilités pour exporter AGOA bi ak avantage yu am am nañu ay société yu ko mën a def euh, ñun nag benn BNDE suñu liggéey mooy jàppale entreprise sénégalaise yi jox leen ay jumtukaay facilité leen financement bi ba pare ànd ak ñoom di leen accompagner loolu moo tax ñu ñëw tey parce que ñun duñu financer rek toog suñu bureau di xaar dañuy financer ñëw sur le terrain visiter entreprise bi xool li mu jànkaltoo comme problème xool naka lañ koy euh, saafara ba pare nag gën ko ñaax pour mu gën a góorlu te tey li ñu gis nii wane na nag Sénégal suñu jàppalee opérateur économique yi si yenn activités yi mën nañu développer l'industrie du Sénégal ba pare développer l'emploi parce que yàq à partir de l'industrie du Sénégal à partir de l'industrialisation du secteur économique ci la ñu mën a développer l'emploi euh, may ñaax nag industriel yëpp ñu def ni ma ko du parce que mbir mi il faut nga gëm ko soo ko gëmee ba pare derrière opérateur économique yi instrument financier yi ñu ngi fi mën nañ leen jàppale nga dem léegi nag ñu ngi ñaan Sénégal yi fil bi ñu produire nañ ko consommer dëkk boo gis dans le monde dafa privilégier ses consomation locales consommons sénégalais pour que nos industries se développent loolu laa amoon lu may wax di kontaan ci li ma li ma ñëw fii di ñaan yàlla nag ñu weesu filature bi dem ci tissage bi e loolu benn dee taxaw na aussi pour jàppale Macodou Fall